faiblesse ça ne passera pas on l'invite à un débat et on l'invite surtout à un sur ces sept derniers mois comme nee na y a pas de scandale à Laser dinañ ko won fan la scandale bi nekk jarul xullu comme nee na amul scandale ONAS dinañ ko won fan la scandale bi nekk parce que nag munoo dëkk ci dëkk dëkk di fen nga njëgal la ci baatu mais loolu mooy dëkk dëkk di fen ku waxul dëgg da fen dëkk di ruube dëkk di dóor marto ne nag kenn du la ko wax yaay kan moo tax mu invitons ou le CNRA à organiser un débat entre les candidats suñ ma waxee candidats yi dañu bëri ma leen waaw su leen neexee ngeen xool nu ngeen di ko organiser wante lu candidats yi bëree bëree bëree bëri ñu leen di nuyu ñoom ñëpp wante am na ñeenti list fu mu nekk nii c'est c'est quatre listes qui font l'actualité moo tax ma ne ko Mimi bàyyil di noggatu grand yi bàyyil di jéem a napp yi naan fitu grand yi te nga ñëw jàkkaarloo ak sa maas loolu mooy dëgg mbokk yi Tambacounda ñu ngi gërëm di sant la population de Tambacounda parce que wax dëgg yàlla démb nit ñi dañu mobiliser wu ñëw wax dëgg yàlla bu jàppale am ñeneen nag ñu ñëw nag bu ruubee ak cokkaas wante ñooñu moom gëm naa ni bagage suñu leen def démb moom bu ñu ko fàtte te su leen neexee tamit nañu waajal le 30 loolu la mbir mi demee parce que ci dëkk day am démocratie ak am tamit loi que le gouverneur de Tambacounda prenne ses responsabilités que le préfet de Tambacounda prenne ses responsabilités et que le commissaire central de Tambacounda prenne ses responsabilités ñun xuloo ni yóbbu ñu Tamba xeex yóbbu ñu Tamba ruube yóbbu ñu Tamba lu ñuy yóbbu Tambacounda mooy dem taxawu suñu mbokk jàppale suñu mbokk te wan suñu mbokk que ñu ngi ci wetam te wan tamit suñu mbokk que injustice buñ ko teg ñoo ko bokk wante nag dinaa leen jox benn exemple bu daw caricaturé parce que comme fii dëkk bi maintenant malheureusement naa firki taxaw nañu nekk daal ci gàttal ñoom nuñ ko gisee ku ko gisee wul noonu ci gàttal daal yow bot yow da bon waaw ma leen di laaj yéen catholique yi yéen musulman yi est-ce que yéen ni ngeen nangu yéen àjjuma jullit yi noonu dem jullit yi catholique yi dimanche yi ñu doon dem ci messe bi est-ce que di ngeen nangu ay naafeq jóge feneen parce que gëmuñu lu ngeen gëm ñu taxaw ne du ngeen fi julli loolu moo xew Tambacounda dem est-ce que am na benn jullit bu dëkk fii Sénégal est-ce que am na benn catholique bu dëkk fii Sénégal di nangu àjjuma wala dimanche ay yéeféer jóge ci àll bi ñoo dugg seen juma wala dugg seen jàkk ngeen di julli ñu taxaw di leen di perturber ne du ngeen fi julli amul kenn ku ko fiy nag le 30 soretul nous serons à Tambacounda incha allah vous allez nous respecter par force foofu la dëkk bi toll parce que nag yàq moo gën a yomb defar te reewantul tubéy parce que nag lu ëpp tuur dama ne ceux qui ont peur et qui ont décidé de se taire ils n'ont qu'à assumer leur responsabilité parce que Mali dëkk bi depuis ñaari at les gens ont peur de parler parler de quoi peur de quoi peur de qui ñuy saaga seen kilifa diine ngeen ne pat ñuy saaga seen démocratie ngeen ne pat ñu leen di saaga ngeen ne pat dama ne ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te suñ ko naree faj dinañ ko fajal suñu bopp te xam ne nuñ koy defee mais à partir de ce moment que chacun assume ce qui va se passer parce que man bokkuma ci ñu bokkuma ci ñu ragal kaso bokkuma ci ñuy calculer kaso. te mi mi xam na ma bu baax a baax a baax Mimi yàgg na yëg suma oto yàgg na ànd ak man te xam na fu may waxee kenn du ma noggatu te kenn du ma fond il ma connaît xam na ma te xam na suma jikko moom nag lu muy toog di seetaan te du ci artu na góorgóorlu ba moom na nekk en tête de peloton comme na nga masse bi yow ñuy topp ak ah bismillah nañ dem comme na ngeen 83 morts yi doyul nañu continuer parce que démocratie am na lu ngeen xam ne ni amu fa place am ruubee bokkul ci démocratie provoqué ay nit bokkul ci démocratie te yéen suñu àndee ci campagne bi di ko gis dinaa dox ci ay bërëb yu bëri fii dañ may ruube ma tàccu leen fële dañ may tàccu ma tàccu leen fii danaa jël selfie fële dinaa jël selfie te ku nekk dinaa la ñaanal yàlla yokkal la sutura te yàlla may la lu gën ci yow mais loolu mooy Sénégal mm-hmm. ana cette façon de faire du ma la may fooy waxe du ma la may fooy doxe du ma may vous vous prenez pour qui et je voulais m'adresser à une tey am na benn site internet bu taxaw ne waaw suma buntu kër ay ndaw nañ ñëw nañ fa xaw ma lan takk benn banderole di Roubaix man baobab laa juddoo yaroo baobab dëgg baobab dafa laa fas yéene génn àdduna parce que foofu kese laa xam askanu Baobab jox nañ ma lépp su ma biir kër du ñëpp a ànd ak man te xam ngeen ci dara su ma koñ du ñëpp a ànd ak man biir Baobab du ñëpp ànd ak man wante dama ne amul kenn kuy yeewu Baobab amul kenn ku fa jinne ba nga taxaw ne da ñëw su buntu kër di ma provoqué amut xel sax xalaatu ko maintenant nag ñu fa bëgg a ñëw. comme nee nañ dañu am fit nañ ma wax ban bés la ñuy ñëw ak ban waxtu la ñuy ñëw suñu buntu kër laa xam. ba ma xam est-ce que am ngeen fitu taxaw su ma buntu kër da nga di fa ruuree. te danaa leen dinaa def lu ma nar a def dem tëddi suma kaso wax ci jeex parce que am na lu kenn dul nangu vous allez vous ressaisir par force vous allez ramener vos troupes à la retenue sinon on réglera nos problèmes parce que fii dëkk bi toll. Tambacounda fu may daaneel. mooy remercier Mamadou Kassé le président du conseil départemental de Tambacounda pour sa mobilisation démb wante tamit pour euh, taxawaay bu mu am aux côtés du président Bougane Gueye Dany euh, la dictature la je n'en reviendrai pas yéen gis nañ leen ñoom ba ñu toogee ba tey ku fi dugal autorisation de marche ñu gantu la ku fi ku ku fi taxaw ah, joxe sa xalaat ñu saaga la yéen gis ngeen nu ñu organiser les élections législatives aucune concertation balaa may dee ñu ne waaw le temps qui nous est imparti mais ñuy def révision des listes électorales la révision des listes électorales dinaa leen expliquer fan la bàyyee ko d' abord y a le code électoral la loi électorale nee na entre chaque élection dañu nar a am révision des listes électorales suñ ko mënulee am le protocole de la CEDEAO stipule que au moins six mois avec avant élection yi na ngeen d' seen biir que da ngeen bëgg dem élection wante révision de mu mënul am boobaa ñu d' accord ne effectivement dañuy dem élection wante du ñu am révision des listes mais nga taxaw ci sama tey ci sa ñàkk gëm yàlla ak tamit ci ay sondage yu nga gestu te wax dëgg yàlla sondage yooyu moom dara baaxu si nga taxaw ne doon da ngay organiser élection mais vous allez priver à 440 000 primo-votants le droit de voter. La constitution du Sénégal moo consacré le droit de vote amul benn juge Sénégal y compris les juges du conseil euh, constitutionnel amul fa benn juge bu mën a taxaw tey jël décision qui peut être au-dessus de la constitution du Sénégal constitution du Sénégal moo ne képp ku am at bi mooy 18 yoon noonu la may sañ-sañ nga mën a bindu pour mën a voter yéen en sept mois vous saviez très bien que da ngeen di dissoudre l'Assemblée nationale lu tax organiser lu leen la révision des listes pour pouvoir donner au moins à ces jeunes la possibilité de pouvoir voter quatre cent quarante mille Sénégalais en âge de voter sont exclus du vote ngeen di ma ne ay le temps nous est le temps qui nous est imparti mayuñu ñu mën a organiser une révision des listes mais loolu vous violez aussi bien la constitution du Sénégal, vous violez la loi électorale et vous violez, aussi le protocole de la CEDEAO moo tax ma ne ñii fu ñu nekk nii fu ñu tollu ak ñoom bu leen ko déggee comme étant une dictature rampante c'est une dictature debout